wala ki ngay labat nga gént mu dóor la mbaa mu wor la wala bax ngeen ànd gént di dox li ngay njëpp jëkk jànk xale bu jigéen boo xam ne amagoo jëkkër xale bu góor boo xam ne amagoo soxna danga gént gis ki lay labat kookee nga gént gis mu dóor la lan lay firi baax na ci gént ci charte mu ñàkk laa dóoree yar na fekk loxoolu dóor su boobaa dafay firi relation bu dëgër lool ci seen diggante dina firi mbëggeel bu dëgër lool ci seen diggante ñi ki noonu xale bu góor boo xam ne danga gént jigéen bi ngay bëgg mu dóor la yéen a bokk luy firi ci yéen wala sax góor nga am nga benn soxna waaye am na beneen xale bu jigéen booy bëgg mu dóor la jàppal day firi relation bu gën a dëgër waaye bu gën a dal boo wér nga ci maa la waxoon sànq ci sart dóor gi bañu a nekk yar mu nekk yar bu mu nekk sentir bu mu nekk yat su boobaa baaxul ci gént ñaari firi la am benn bi mooy ñàkk sa alal maanaam moo xam xaalis la moo xam matériel bu lay intéressé léeg-léeg dana firoon léeg-léeg nag ñàkk gi sax dana dellu ci relation yi maanaam ngorowante googee kookee nga nopp wala nga bëgg ko seen diggante dana yàqu danga koy ñàkk bu dee yat nga ko dóoree wala yar kon nga jàpp ne dóoree loxo wala leneen lu dul loxo moo gën yet mbaa yar wala ceinture wala lu ci aju dafu gént ki ngay bëgg nga gént génn ànd ak moom ngeen di doxantu moo xam ci jardin moo xam ci plage moo xam moo xam et cetera loolee baax na li muy firi lan la di lalaat yi bu njëkk bi te gën a am solo mooy dafa bokk ci wane ne yow xale bu jigéen boobee wala yow xale bu góor yi kookee nga nekkal mbëggeel bu wóor nga ko bëgg yow moom it mbëggeel ku dëgër la loolu loolu dalil waa def mooy li ci borom xam-xam yi léeg dana bañ a firi loolu nag nekk xadis nafs xadis nafs mooy nga nekk ci xalaat koo xam ne moom nga bëgg chaque jour di ci wax téléphone di ci léeg-léeg du ñàkk loolu ñëw di sa gént loolu moom wala boo nga nekk di tiit footol di ragal naan kii mbaa duma ko ñàkk ñaari fiyee nga ñetteel bi te gën a tënku te ñëpp moom lañ gën a bëgg mooy day firi day firi sëy benn ci sa ci moom loolu la borom xam-xam yi gën a sax ak ñi desul déedéet dana firi sëy ci moom waaye mën naa firi sëy ci keneen ku dul moom waaye daa kulli xaalis mooy gént ak gént ànd ak ki ngay bëgganteel ngeen ànd di doxantu wala plage wala mel noonu waaye li gën a wéer dañu bind ko daal mooy bokk na ci firi sëy ci seen diggante kon ñetti maanaa mi ngi noonu kii nag da gént di dox. ci biir gént gi sentir nga ne ki ngay bëgganteel moom nga àndal yaa ngi jàpp ndax am naa ku ma àndal ku ma bëgg lool waaye kooku kan la xamoo kanam gi joxu la ko kookee maanaam man diw lay àndal yéen a nekk di ngorowoo ngay dox di waaye kanam gi mu la jox du moom beneen kanam la jox loolee bokk na ci nga xam ne dafa nekk alama tahziriya ci nga bàyyi xel diggante boobu te xam ne am na yàqu-yàqu bu cay waaj a ñëw wala jafe-jafe bu cay waaj a ñëw nga bàyyi ko xel loolu xam ne mooy li ci borom xam mën naa sax dem ba firi kookee dalay trahir loolu moom lu ñu bind la kon nag ma ñëw ci beneen port bi ma bëggoon a jàngale mooy ki ngay bëgganteel gént mu trahir la mu wor la takk keneen wala mu wor la sëy ak keneen lan lay firi ci gént balaa ñuy ñëw ñu ngi leen di présenté waat cangat yi képp kuy suñu abonné ñu ngi lay soññ suñu lu nga jëm ko am ndax cangat bu am solo lool bari doole lool ci wàllu ubbeeku lool ci wàllu ubbeeku ci wàllu njarte ci koy jaay ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ci liggéey waaye surtout ci wàllu kaaraange naka noonu ñaari bouteilles yi ñu doon wundoon woon aussi aussi pour wàllu cangat ngi fi incha allah ngeen góorgóorlu am ki ngay bëgg da gént mu war la ki ma njëkkee muy góor am na koo bëgg nga gént mu war la dem nekk ak keneen euh, ci góor euh, balaa may ñëw sax yow góor nga yow yaa gént trahir ki ngay bëgg takk keneen yow góor nga gént nga takk keneen ku bokkul ak ngay bëgg def ko ci war lan lay firi dañoo xam dafa bokk ci màndarga yi firi da takk kooku ala kulli loolu benn firi la ñaareelu firi mooy dañ na ah kay da nga ko takk de waaye balaa nga koy takk da nga sonn lool lool doo ko takk loolu benn firi la beneen bi nag góor nga dafa am koy bëgganteel nga gént kooke mu wor la kooku benn firi bi ci am yàgg jigéen xale bu jigéen bu am koy bëgg mu wor la yenn a bokk même firi bi dalaa wor dem takk keneen wala nga war ko waaye yéen ñaar kenn moo ci gën sa moroom war la dem takk keneen euh, li ci boroom xam-xam yi wax yii la ngeen jàpp ko comme ni ma ko wax lépp ci téere yi lañ ko fekk ñenn ñi dañ ne day firi tàqalikoo ci seen diggante loolu am ñu ko wax ñu ci des nii du firi tàqalikoo day firi sëy ci seen diggante ñaar ñetteel nit ñi daan ne day firi problème bu rëy ci seen diggante waaye problème ba day jeex ba sëy am ci seen diggante léegi man nga mi ma dina firi ginnaaw bu ma dajalee yooyu yëpp lan laa gis mooy damaa gis te wax ju mujj ci moo am moo gën a wér ngeen baal mooy problème ak coow lu rëy ci seen diggante waaye day jeex ba sëy am ci seen diggante kon loolu mooy li ci nekk yéen ñaar ko ci gént sa morom war la takk kenn da nga ki ngay ngoro mu war la ci biir gént gi dem takk keneen balaa gént gee jeex mu retourné waat ñëw takk la lan lay firi ci biir gént gi war na la fi ñëwaat takk la ci biir gént gi walla kii gént nga ci biir gént gi war na la fi sëyi ñëwaat gént sëy ci biir gént lan lay firi dañoo xam day firi ay problème ci seen diggante waaye problème yi day jeex ba sëy am ci incha allah ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné di partage asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.